asalaamaaleykum mbokki internet vingt 24 actu Sénégal ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen jëfal bu baax ci topp ak bàyyi xel gi ngeen di safoo di bàyyi xel seen sit bii di 24 actu tey nag euh, ñu ñëw a yéen ci seen émission préférée bii di euh, li ci réew mi li ci réew mi nag ku ko wax xam ne day jëm ci lu jëm ci di càmbar lépp lu jëm ci wàllum actualité. rawatina na ak doomu aadama yi société bi nga xam ne ñooy dund fii ci euh, réewum Sénégal rawatina tuuba Mbacké tey nag euh, ñuy jëm ci lu jëm ci wàllum éducation bi di njàng ak njàngaleen mi ñu dalal ci tey itam ku am solo di Serigne Fallou Bousso Assane euh, nekk directeur bu Serigne Mbacké Bousso ñu gën koo xam ci excellence kon damay bàyyi sama gan rek mu nuyoo mbokk internet yu 24 actu Sénégal. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna Xadi ñu ngi lay nuyu. daal di suñu nuyoo mu ci mboolem ñi nga xam ñooy topp seen jumtukaay bi di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu yàggal ko fi di nuyu mboolem jàngalekat yi ak ñëpp ku ku yëngu ci wàllu jàng jàngale nekk ci département Mbacké wala nekk ci biir Sénégal di masawu coono ñëpp ci jafe-jafe yi nga xam ci la njàng mi toll jamono ji toll ni di nuyu sa caméraman bi nga àndal di nuyu ñëpp. jërëjëf sëñ Fallou xam naa rek damay ñëw ci suñu première question mooy euh, comme que yéen yéen a ngi ci wàll al azhar di fi yëngu fii nag ku xam Touba xam naa al bokk na ci du ma wax sax Touba mais. Euh, Sénégal lañ la ñuy wax euh, Al Azhar mënees nañ ne moo fi teg tànk bokk na ci école yi fi gën mag fii ci réew mi képp ku ko tudd tey tam sa xel day dem ci yar ak yar la ak lépp lu jëm ci wàllum xam-xam est-ce que mënees nañoo xam Al kañ lañ ko sañc ak ñaata école moo fi nekk fii ci biir Touba. ni nga ko waxee al azhar bokk ci établissement islamique al azhar di yar ak jàngale tax koo jóg Cheikh Mouhamadou Moutada moo ko sos bi nga njëkk ubbi ay classe am ci atum 1974 75 classe yi njëkk ubbi ci at moom lañ ko ubbi euh, tàmbalee ko Daaru Salaam Ndaam muy école bi moo ko njëkk sos jamono ji wax ak yéen nag ni nga ko waxee noonu la demee al azhar bu état Sénégal jàllalee ci wàllu jàng jàngale moo ci jiitu ci wàllu effectif dong yi fiy ci wàllu classe yi yor ci wàllu jàngalekat yi boo état du Sénégal jàllee moom moo ci toll moo ci topp ndax bu ñu xoolee lim di ciy jàng ci dong mat nañ juróom-ñaar fukki junni jongo ñu teg jàpp juróom-ñaar fukki junni boo xoolee li fiy jàng li fiy jàngale ci ay jàngalkat ak di fi yëngatu ci wàllu liggéey bi ëpp nañ ñaari junni boo xoolee école yi li am ci limu école yi nekk biir Sénégal fépp foo dem ci biir Sénégal fekk ko fa waaye am sax benn benn yu nekk bitim réew boo ko xoolee dina toll ci juróomi téeméeri école wala lu teg yoo xam ne al azhar moom ci li ñuy yëngatu ci biir azhar la ñuy mu def ci wàllu jàng ak jàngal itam lu bari loo xam ne wax dëgg yàlla foo gëstu gis ko fa ndax mën nañ laa wax ne la boo doon xool tey ñu yëngu ci wàllu jàng jàngale te koy def ci wàllu làkku arab mën nga ne man nga ne 50 pour cent yi wala 60 pour cent yi al azhar moo leen formé wala jaar nañ ci biir al azhar wala ko al jaar ñu jaar ci loxoom boo xoolee ñu nga xam ne inspecteur lañ dans l'enseignement en langue xam ne ñoom tam ci arabe bi la ñu yëngatu boo xoolee moom mën nga wax ne quatre-vingt-dix pour produit yu al azar moo leen génne ñu jàngale dem def seen concours inspectorat jàll ko di yëngatu kon ci wàllu jàng ak ci wàllu lislaam Sénégal moom ci àlako arab ci Sénégal daanaka mën nga ne al moo ci jiitu jamono ji ñu toll nii donte nag séq na ko yeneen jàmbaar yoo xam tam ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax bu dee ci fii ci biir Touba nag ni ko xame bu njëkk benn centre moo fi nekkoon ñu ko doon tuddee centre Khadim Rasoul moo nekkoon Daaru Salaam Ndaam mooy bu mag bi léegi nag bi dëkk bi gën a yaatu dañ ko def ñett centre centre bu nekk nag bu ñu ko waxee ci El Azhar mooy centre moom dafay polariser dafay boot ay école yeneen école yooyu topp ci gannaaw nga xam moom moo leen di bootaale boo xoolee kon ñu am fi ñett centre ci biir Touba am na Khadim Rasoul moo nekk Ndaam am na soxna Maymuna Mbàkke moo nekk forage Sëñ Mbàkke Bousso bi ñu toog tey moo nekk fii buñ xoolee Sëñ Mbàkke Bousso bi ñu toog rek li mu boot ci école ci biir Touba ëpp na fukk maanaam fukki école yoo xam ne nii école bi moo leen boot ñu topp ko ci wàllu administration ci ak liggéey bi ñu topp ci gannaawam mm, forage am lu mel noonu ndaam am lu mel noonu nga xam fi ne mu ñoon xool li nga xam ne am nañ fi élève ci biir Alassar ci Touba ñetti centre yi bu ñu leen boole dana jege fukki junni ci ay dongo yoo xam ne nii ci biir Touba rek lañ nekk di jàng ci centre bu ndaam wala centre bu Sëñ Mbàkke Bousso wala bu Soxna Maymuna Mbàkke loolu kon mooy li nga xam moo ne ci biir àlasaar fii ñu toll ni jamono ñu toll nii macha dégg nañ euh, kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko mu mel ne rek Al Azhar Ndaam comme ni ñu ko waxee woon ca njëlbeen nga rek bokk na ci école yi nga xam ne kenn dootu ko nattable fii ci réewum Sénégal mm. euh, ci xam-xamam ak ni ñu ko organiser euh, jàmbaar ji Cheikh Mouhamadul Mourtada sosoloon ñu ko ñu koy ñaanal rek tey ñaan barkeem yàlla na wàcc ci bépp ndongo rek boo xam ne mi ngi jàngee ci Al Azhar euh, sëñ Fallou xam naa li ñu lay laaj rek mooy damaa dégg sànq nga ne euh, Al Azhar euh, làkkum arab mënees nañu fii moo teg tànk ndax yeneen làkk yi mu dëkk du jàngale wala. waaw xam nga dafa am lu ñuy wax langue d'enseignement langue bi ngay jàngalee ci misaal boo demoon ci école gouvernement dañu naan seen langue bi ñuy jàngale mooy français boo ñëwee suñu école Al Azhar dañu naan làkk bi ñuy jàngale mooy arab waaye teewul yeneen làkk yi mi ngi fi français mi ngi fi anglais mi ngi fi ñett ñetti langue yooyu moom xale bi dana ko fi jàng bu fi nekkee li ci yokk sax te ak bees lañ ci def mooy am nañu ci système franco arabe fii ngeen toog école bi ngeen toog nii noonu franco arabe ñuy def franco arabe nag boo ko déggee mooy dañ lay jàngal programme bi nga xam ne nii moom la état bi Sénégal di jàngale programme officiel bi état bi jàngale nga xam fi ne ñun suñu xale yi li ñuy jàng ci école publique yi ci france bi lépp dañ koy jàng fii ñoo ñoom ñoo tolloo benn niveau ci côté boobu bu ko defee nag ñu yokkal leen ci arabe bi en tant que langue ak diine ji moom ñu koy jàng ci làkku arabe loolu bu ngeen xoolee ñun si école bi ñun noonu la ñuy doxee moo tax dañuy présenté xale yi ci ci examen yi certificat BFM e ak BAC dañ leen di présenté. fi ne li ci yokk boo demee xaayir am na suñu benn école bi nekk xaayir boo xam ñun fii la bii la topp mu ngi benn lycée lycée la moom tam foofu boo fa demee programme yi lycée Sénégal jàng yëpp moom la ñuy jàng moom kese moom la jàng dafa dem nga mën nga fa am série S série L l jeex noonu lañ koy jàngee ñoom tam boole ci nag seen làkku arab ak diine ji moom tam dañ koy jàngaale kon bu ñu nee arab lañuy ñun jàngale wuñu arab dañ ci jàng dañuy jàkk ci làgg bi waaye li ñuy jàngale mooy xam-xam bi ak diini ji ak seet noo xam ne ñu mën a jaarale nit ki ba mu nekk nit koo bu génnee dana mën a jariñ réew mi jariñ boppam jariñ àdduna yëpp. mu nekk lu am solo waaye sëñ Fallou xam naa li ñu bëggoon a xam rek euh, mooy euh, comme que yéen di ngeen di présenté ndongo yi tey itam ci euh, école wala ci examen public bi muy njàngum état bi léegi loolu kañ ngeen ci dugg ak ndax di indil ay gàllankoor tey itam ndongo yi. day doon benn gàllankoor mën naa la wax ne fii ñun fii ñu toog tey bi biñ ko sosee depuis 2008 2009 lañ sos école bi lañ njëkk a ubbi biñ fi nekkee ba 2014 ci lañ njëkk am première promotion ñi nga xam ñoo leen dalal jàng ñu def CI ñu présenté la ñu def certificat bu bu gouvernement bi def franco arabe ñooñu ci 2018 ci lañ def seen BFM ba état bi ñoom lañ ubbi lycée bi nekk xaayra fii ne ñoom ña nga fa ren jii ñu ngi def seen première déwén ñu def seen terminal noonu tam lañ ko ne xale yi ne fii amuñ ci benn jafe-jafe ndax ni ma la ko waxee léegi xale bi bu buñ koy jàngal maanaam par rapport crédit horaire bi ñu yore ñun mooy gën a fort mooy ëpp crédit horaire bi yeneen école yi ñu def ci misaal tey ñun fii boo jëloon tey suñu classe yi nga xam ne de troisième wala yu mel noonu dañuy def ba 36 heures ba ba 36 heures côté yooyu noonu la ñuy def ndax dañuy jël heure bi rek maanaam ñu war a def ci maanaam heure normale bi ci crédit horaire bi ñu war a jox yeneen naaj dañu koy jox ba noppi yokk ci nag crédit horaire boo xam ne arabe bi ak islam moo ko tax a jóg maanaam juróom lañ ci yokk yoo xam ne nii ñeenti waxtu arabe lay doon ñeenti wax nekk njàngum diine bu ko ko nag ci programme officiel bi moo tax duñ ci am benn jafe-jafe wala boog amaguñ ci benn jafe-jafe yi itam am na fi ñoo xam bu ñu génnee fii seen jàng ci misaal tey bu seen BFEM am na ñoo bu leen neex dañu leen orienté am ñu nekk lycée Mbacké am ñu nekk yeneen lycée di jàng comme di jàng ba tey waaye gis nañu fu ñu mën di debet ci élèves fa gën a jàmbaar ci la ñu bokk donte ñun ñoo leen formé moo tax gis nañ ne formation la boo xam ne nii xay na nag nit ñi xamaguñ ko bu baax xëy na dañ ci profité tam pour nit ñi xam ko gën koo xam ndax xamaguñ ko bu baax waaye dañu gis ne moom rek moo mën a xetti li njàng mi surtout rawat na fii ci Touba ndax comme ni ngeen ko xamee diine ñun mënuñ koo bàyyi mooy sunu mooy sunu cosaan mënuñ koo bàyyi mënuñ ko ñàkk bañ a jàng waaye itam yeneen matière yeneen xam-xam itam dañ koy soxla ëllëg ndax soxla nga ab docteur soxla nga ingénieur soxla nga keneen ak keneen te loolu bu ñu formé wut ëllëg duñ ko mën a am moo tax fexe nañu boole ñaari rek moo ñu mën a génne ci mbir moo tax ñu jéem koo boole te gis nañ ñu ngi am ay ay résultats yu baax a baax yoo xam ne nii wax dëgg bi ñu mën naa la wax ci misaal ne la sunu première promotion bi def BFM biñ demee Mbàkke di def Mbàkke xewar 1 lañ leen defee centre bi ñun ñoo fa jël presque 10 premières yi ñaar rek ñooñu ci rax ci élèves yeneen jóge ci te ñoo département Mbàkke yëpp ñoo ko bokkoon te 10 premières mën ñaar rek ñooñu ci raxoon kon ñu ngi ci am résultat daal ci tënk. macha allah yéen a ngi ci am résultat bu baax mais euh, bu ñu seetloo tamit euh, ndongo yi nga xam ne waaw bu ñu demee ba am bac dañuy am problème yu métti rawatina ci wàllum français bi làkkum français bi ndax fii bu ñu seetloo yi nga xam ne moo fi nekk euh, donte sax léegi mënees nañu ubbi nañ yeneen université yoo xam ne pour arabisant yi la mais ñi nga xam ne orienté nañ leen ci ni ci mel université Cheikh Anta Diop fa demee dañ ciy jànkuwanteeg difficulté yu métti ndax Al moom préparé na ndongo yi préparé gu dëgër goo xam ne bis bu bu ñu demee dinañ xam nan la ñuy jànkonteeg problème yu ni mel. waaw xam nga ñun bi ñuy jël élèves yi ñuy jël dafa am ñaari xeetu élèves am na dongo yoo xam ne nii ñoo leen di dalal jàngal leen bañ dem bat ñooñu di am benn jafe-jafe ci làkk yooyu ndax dañ koy teel a commencé di ko jàng léeg-léeg nag ñi nga gis ñi am jafe-jafe dëgg-dëgg mooy koo xam ci misaal dafa jàng arab jàng na arab ba sori ay atam sori bu ñëwee dañ koy defal test ci niveau arab bi bu ñu ko defee test ci niveau arabe bi nag mën nañ koo jël mu commencé quatrième wala troisième kooku nag bu fekkente ne amul góorgóor loolu niveau français am du dëgër ñoom ñaar ñooy am jafe-jafe bu ñu demee université loolu moom lu wér la waaye nag ñooñu duñ nekk ñoo xam dañoo tàmbale ci alasar waaye ki nga xam dafay tàmbale jàng ba am bac moom ñaare bu demee du am benn jafe-jafe ci làkku bi ak ba surtout sax dañ ci dañ ci xaw a jàmbaare bu baax a baax a baax waaye nag bu dee bi ñëw fii ci ci ci alasar fii ci fi ngeen teg moom mi suñu mbàkki bu sow moom xale bi niveau français moom niveau ba euh, kay jàng ci école publique am ñoo tolloo am na ñoo xam sax ñoo mën ñuy jàng ci niveau école publique yi ñooy mën foofu ndax defe naa ne bu ngeen bu ñu la joxee misaal ne ci misaal tey ñun suñu CM2 bi année bii passé ba ko jiitu ñoom ñoo jëloon coupe départementale générale bu ci département bi yëpp te dañ ko bokk école publique yëpp lañ ko bokkaloon te ñu ñoo jël coupe bi ci année boobu suñu élève lañ loolu dafay tegtal ne ñoom seen niveau wax dëgg yàlla dëgër na ci français noonu la dëgëral tamit ci bi xëy nag mu des nag bi kon xëy na loolu liggéey la xam ne nii école yaa ngi ciy a baax ngir gën koo yokk gën a defar niveau loolu moom dañu ànd moom di ko defar mu nekk lu am solo xam naa rek euh, dañuy dugg ci beneen wàll comme jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àddina woon wëngal këpp di jàngoro coronavirus bi tax na tey itam mënees nañu école yi ñu si bari jàngatuñ mënees nañu sax ñëpp jàngatuñ depuis 16 euh, euh, mars ba léegi école yi tëjoon seeni i buntu loolu nag mu nekkoon autis boo xam ne mu ngi dal ci ci ci ndongo yëpp. sëñ Fall lu nga yaakaar ni année blanche du am ci mim réew xam naa sax ministre bi joxe waat na délai démb rek ñoo ngi jot ay xibaar ne le 25 juin. Euh, dinañ reprendre daan njàng mi mais est nga yaakaar ne tamit bu ko reprendre tamit du def wax waxeet comme na nga ko defee woon. waaw dañuy ñaan mu bañ am ndax biñ ñu ko ñu njëkkee wax la dë wax dëgg yàlla xel yëpp daloon nañu ndax ku nekk xam na ne fi mu ne kuy tiit moom tiit jot na ndax réew moom lu nekk mën naa gàllankoor ñu defar ko mu des njàng mi njàng moom bis bu yàqoo rek lépp a yàqu ndax njàng mooy mooy mooy taawu am réew moo yor développement mooy mooy tax wér gu am ndax xam ngeen ni maanaam ñàkk ak wéradi réer moo koy lal nit ki bu réeree mën naa toog ci koom mu baree bari du ko mën a exploité nit ki bu réeree nu mu mën a fegoo ci ay jàngoro yu baree bari du ko xam kon jàng mooy cosaanu ñu fi bu ñu ko defee rek réew mi dox moo tax bu gàllankoor rek ñëpp dañ ciy tiit rawat na nag ñi nga xam dañ ciy yëngatu muy seen métier ñu ci yëngatu ñoom ñooy gën a tiit moo tax wax dëgg yàlla bi ñu tëjee la 15 maanaam jaaxle woon nañ lool ndax dañu jàppoon ne suñu problème ay problème ñaari semaine lay doon ñetti semaine mu jeex waaye bi ñu ko prolongé ko yokk yokkaat nag wax dëgg jaaxal nañ ci ñaari fànnam jaaxal nañu ci fànn dongo yi seen niveau nga xam wax dëgg yàlla xale boo jàngal ci misaal ñi def CICP nga jàngal leen ba àgg foofu fi mu nekk ni bu ñu taxawee ñoom dañu perdre lépp la ñuy perdre ndax ay xale xam ne ni eh, daanaka da ngay ànd ñoom rek ñu taxawee daanaka foo fu ñu yem foo yem ñoom rek foofu la ñuy yem ñooñu fi ne bu ñu ñëwaatee daanaka meneen njàngum bees lay doon danañ jaaxal tam li ñuy wax classe yi nga xam ne ni ñoom dañu war a ñii dañu war a def quatrième di ñu war a def cinquième ñu a def nangam nangam yooyu classe yooyu itam suñ jeexalul seen programme bu ëllëgee da leen di jafe-jafe ndax da leen topp niveau bi day wàcc kon defe naa ne même di waxtaan classe d'examen yi sax baax na waaye classe intermédiaire yooyu moo ëpp solo ndax njàng niveau moo am solo te niveau bi yaa ngi koy jëlee ci classe intermédiaire examen moom maanaam kii rek la évaluation finale rek la nga xam moom diplôme nga ci am waaye nag kon bu ñu gàllu njàng mi gàllankoor foofu kon danañu jaaxal lool lool moo tax xawoon nañ ci amul tiit moo tax bi ñu nee war a jël yëpp wax dëgg yàlla xëy dañ ci ñëw bi ñu ñëwaatee dañu jëlaat décision tam ne dañuy dañuy dañuy ajaan njàng mi comme dañoo topp système bi rek ñun tam dañuy aj moo tax bu ñu waxaatee ne le cinq danañ ubbi noo ngi ñaan nag bii yoon yaakaar nañ ne jël nañ matukaay ñu war a jël ba yaakaar naa la amoon du am ndax defe naa ne diir bi ñu toog xëy na mën naa am damay jàpp ne yu problème yi noonu ñu waroon régler te réglé waaye yaakaar naa mënuñoo def wax waxeet moom ci bi yoon euh, jërëjëf sëñ Fallou waaye euh, xam naa bu fekkee côté boobu nga xam ne moom nga waxee muy euh, lu jëm ci njàng mi la cinq yow jàppees nga ne daal manees nañoo war a mën a jàng mais nu ma Mamadou Talla mi nga xam mooy ministre de l'éducation bi est-ce que amoo leen loo ciy jàngal ndax bu fekkee tey ji bàyyi nañ école yi nga euh, euh, classe d'examen yi ñoom ñu jàng yeneen classe yi nga xam ne tey itam jéemuñoo amul lijjanti ci ñoom ak étudiants yi nga yaakaar du am problème ndax élèves d'examen yi tamit bu ñu amee tey itam seenu euh, diplôme fan la ñuy fekk ji ñii dañuy dem dañuy dem université ñii dañuy yéeg ci yeneen yeneen niveau yi ñooñu bu fekkee yéeg nañ te yeneen niveau yi tey itam jànguñu nga yaakaar loolu du jurug problème. ñëpp xam nañ ko. xëy na moo tax mbir mi ni ñu koy faral di waxee rek xam nga matukaay bi ñu koy jël xay na am na ci yoo xam ay njuumte yu biir wax dëgg yàlla yu baree bari yoo xam ne nii mënoon naa bañ a demee nii xëy na fekkonte ni nii ñu def tey teel ubbi waxtaan waxtaan ceeg mboolem partenaire waxtaan acteurs yi yëngu ci éducation yëpp buñ ko defoon ci départ bi ñu laata tëj école yaakaar naa solution mënoon naa am xëy na kon ñàkk waxtaan ci départ bi moo jur lu mel nii moo tax nag ay njuumte am na ci biir ndax ku nekk xam na ne même li ngay wax ni dëgg la parce que fekk université kenn xamagut ni mu ñuy mujjee jàpp na ñoom xëy na ñoom daañu réglé seen bu fekkee seen problème réglé wul tey ñi am bac ci misaal buñ demee ñële bu fekkee dañu def année blanche war leen faa fekk maanaam effectif day yokk maanaam day maanaam maanaam sax université du ko mën a attan rax ci doole nag maanaam niveau xale yi nar a yàqu ñun loolu moo ñu gën a jaaxal te defe naa ne communication bi itam tax na nit ñi ni ñu waroon a amee confiance ci ministre bi day wàññi ko ndax wax dëgg yàlla wax waxeet dafa baaxul ci kilifa moo tax lépp looy def dañ ko doon jàngat ba mu kii ndax waxoon nañ ko ci beneen jotaay mel ni waxoon nañu yaakaar nañ ne maanaam ku nekk war naa xam ne tey biñ nee la deux dañuy jàngi waroon nañoo gëm ne xale yi ñoo wax ne ñoo war a jàngi def ko classe d'examen juróomi junni juróomi téeméeri junni lañ lu teg ñu ne jàngalekat yi leen war a jàngal juróom ñeent fukki junni lañ ñu teg nga xam lu mu néew néew maanaam juróom benn téeméeri junni nit waroon nañ leen mobiliser yaakaar naa nag ci jamono ji ñu toll nii bu fekkente ne test yi ñuy def ni ñu ko waxee noonu la demee maanaam juróom benn téeméeri junni Sénégal yoo dajale lu mu ne war nga cee mën a nangam yu am feebar kon waroon nañu xalaat ne juróom benn téeméer junni bu ñu leen mobilisé maanaam nangami kaa fukki kaa wala ñeenti kaa wërta tax ñu tëjaat école yi loolu dañ ko war a bàyyi war nañu xam mënta ñàkk xanaa kay comme jàngoro bi dund mooy da ngay du da ngay da ngay wér di dañu faj la ñu wéru ñu wéru dem jàngi ndax loolu la liggéey même ñun si école bi nga gis nii même bu dara xewul daanaka doo fi toog une semaine wala ñaari semaine yoo xam doo dégg xale bu daanu ndax xale dañu ñëw ñii dañoo am asthme ñii dañoo am diabète ñii dañoo am tension ñii loolu lépp a ngi moo tax ñu dañuy dund ak ñoom ku feebar ñu jël yóbbu daal faj ñu wér di jàng boom te bu wéree fekk si leen loolu mooy ànd dund ak jàngoro ji mi ngi mel ne loolu feebar yëpp noonu demee loolu moo tax bi président génnee ne nañ seet nag léegi nañ dund ak jàngoro ndax jàngoro bu jógu fi ndax wax dëgg yàlla jàngoro boo xam ne xamoo ko li fi jóge te mënu koo a tëj ay école tëjum réew loolu tam wax dëgg yàlla mel na xel nangu ko loolu moo tax xëy na kon nag am na ci ay njuumte njuumte ne kon li ko lal lépp mooy ñàkk waxtaan yaakaar naa ni ci waxtaan nii ci muj gi buñ ko def buñ defoon ci départ bi kon mbir mi mën naa bañ a demee nii. xam naa foofu laa lay laajaate sëñ Fallou kon yow da ngaa jàpp ne daal nguur gi boobu daa sàggane njàngale mi bu ma déggee sa wax dafa mel ne loolu nga bëgg a junj nguur gi daal dafa sàggane njàngale mi ndax bu bëggoon année blanche bañ am dina xam yoon yam yoon ya nga xam ne moom lay def ba du am. waaw xay na mën naa bañ a nekk sàggane sax waaye njuum njuumte day am xam nga nit moom sunu borom moo ñu bind ñëpp ñëppay juum njuumte mooy ñàkk waxtaan gi xam bu ñu delloon ay waxtaan rek yëf demee nii waaye nag nii mu doxale nii moom wax dëgg yàlla da kum neex mën ngaa gëm ne nguur gi dafa sàgg na njàngale ndax ci misaal tey mën ma wax ñun école privée yi rek ñun ñi nga xam ay privé lañ bu fekkee da nga ñu ay privé lañ ñun tëj ñu ñetti weer ñetti weer yoo xam ne ni dañu tëj école yi école privée yi te la koy doxal mi ngi jógee ci euh, li fay dongo yi fay bu xale yi fayut école bi du mën a fonctionné waxuma la ngay fay ab jàngalekat ak la ci ci aju nga toog ñetti weer yoo xam ne kenn fayut te état bi gëstu te mooy dañu wax ne génne nañ mille junni milliards yoo xam ne ni dañ ko bëgg dañ ko bëgg jàmmaar la wér a dig jox ñëpp nag maanaam ñëpp bañ koy séddale sédd la ñëpp maanaam ñi nga xam ñun sax lañ dañoo jàpp la ñuy def amul solo sax mu sédd nañu te dégguñoon fenn fu ñu tuddee njàng mi bañ demee ba koy tuddit ñu ne 1 milliard la yëpp école privée nekk Sénégal yëpp booy xoole ëpp nañ ñetti junni te boo xool li ci jàng ci dong bu ñu nee ñetti million ak nangam ñooy Sénégal yi jàng tool ci jàng ñoom mën nga ne million bi wala million bi ak lu topp ci école privée lañ nekk ñetti junni école privée nga booy leen ab benn milliard bu ñu ko séddewoon ci misaal école bi nekk bu amee baaxee baax du ëpp trois cent cinquante mille loolu day dikk presque quatre-vingt-dix mille francs par weer ci école boo xam ne nii maanaam li muy weeru jot ay millions ndax man suñu ñun école bi donc weeru jot ay millions la ñuy personnel bi ay ñun yu bëree bëri lii mu lay doon tey su ma la waxoon ne gépp bu ko xooloon tey li ñuy fay seen seen seen ci par weer rek ëpp téeméeri million ak juróom ndax li ci élève état bi mën leen a jël ñoom ñëpp. système éducatif Sénégal état moo ko war a saytu ñu boole yëpp saytu ko saytu privé bi saytu public bi bu ko defee privé bi tam ñu teg ko ci yoon ku ci ku ci ku ci nekk buñ la waree jàppale ñu jàppale la xam la ngay def di la contrôler di teg ci yoon loolu def naa ne bokk ci la am solo ci njàng mi. ndax waa la Azhar jot nañ seen wàll ci ndimbal yooyu. waaw comme biñ neen ku nekk da ngay déposé déposé nañu waaye biñ génnee ñu gis som bi ñun Al xalaat mooy ne loolu moom wax dëgg yàlla doyewuñ dara. ndax ndax bu nu ko jëloon tey ci misaal tey man su ma ko jëloon tey ñu jox ma sama école ñu jox ma 350 000 léegi maanaam sama personnel lu mat na 46 40 maanaam ñeent fukki ak juróom-benn yoo ci loolu tey 350 000 boo leen ko ñetti weer xool ku nekk ñaata lay a am waaw kon loolu moo taxoon à ñoom ne ñoom ñoom loolu bu fekkee daal noonu la demee ñoom ñoom maanaam maanaam maanaam doyul ku am solo daal. léegi nag négociation la xëy na waxtaan la état tam xëy na xamut xamut fii effectif privé yi toll mën naa buñ ci gën a waxtaane moom xëy na yeneen yeneen jubbanti dana ci am waaye daal ñoo ngi xaar ba xam jubbanti dana ci am sëñ Fallou xam naa ma ñëw rek ci sama laaj bu mujj mooy xam ngeen ne Al Azhar Ndam euh, waa ci institut privé yi ci la bokk fii ci réew mi di def tey itam ñaari diplôme euh, gone gu fa génne manees nañu da nga am diplôme état waaye itam da nga am diplôme école ba léegi Al moom ndax dafa bëgg rek courage la bara toog rek topp ci euh, waaw waa état luñ ko wax mu def luñ ko luñ ko digal tey itam mu def ba tax mu sàggane tey itam beneen diplôme moom boobu nga xam ne moom la ndongo yi waroon am xam na fi ñu topp état mooy lu mel ne décret présidentiel loolu bu ko jëlee réew mépp la engagé moo tax bu président jëlee décret ne dañuy tëj école Sénégal al azar amul sañ-sañ ñu ubbi ay buntam moo tax dañuy tëj waaye nag bis bu état joxee ndigal ne nañ ubbi école yi ñun xam na nu ñuy réglé mbir mi te dañ ko réglé tam incha allah examen yi ñu war a def te di ko def ci turu al azar danañ ko organiser diplôme yi nañ joxe dañ ko joxe loolu xam nañ ni ñu koy defee moom kay xaar mooy décret bu présidentiel war daat ne may nañ ngeen ubbi yi waaye bu ñu xasee ubbeekoom li ci des moom xam nañ ñu koy mooy plan Al Azhar pour moom pour ñu mën a sauver ñoom seen année blanche ginnaaw boo xam ne nguur gi tijjiwaat na buntu yi. waaw xam naa nag léeg-léeg dañuy wax ne plan moom di ko di su ko maanaam waa ku ne xam nga système bi noonu la waaye daal am nañ suñu matukaay yu ñu jël yoo xam ne nii euh, incha allah dalal xelu parents d'élèves bu wér nag xamal leen njàng mi xëy na rëq-rëq yi bari na toog nañ ñetti weer jànguñu waaye incha allah le 25 bu ñu ñëwaatee. xam nañ daal ni ñuy lijjantee fi te danañ ko lijjanti te jàpp nañ ne bu soob yàlla ak système bi ñu teg ak maanaam yoon wi ñu tëral pour jaar ci ñun incha allah xale yi mu du waxuma daañ jeexal programme bi de waaye incha allah li ci ëpp daañ ko def te it li ñu fas yéene itam mooy heure bi ñu daan ubbi dañ ko ubbi octobre lañu daan tijji premier octobre ci lañu daan ubbi bi commencé jàng incha allah le premier octobre ci la ubbi 2020 2021 année danañ ko jubbanti teg nañ plan yi ba pare xam nañ tam fi ñu jaar xam nga année scolaire Sénégal officiellement le 31 juillet jeex ci la ci mooy mooy année scolaire vacances août septembre léegi nag comme dese nañ fi mois de juin des nañu tuuti mois de ko jàng août danañ am nañ def ak moom xëy na bu ñuy noppalu septembre bi la ñuy noppalu octobre ñu reprendre vacances il faut ñu laal ko loolu la mënta ñàkk il faut que ñu laal vacances yi ndax dañuy jël ay vacances vacances na vacances forcées la waaye daa am ko dañ ko dañ ko jël anticiper ko ci vacances yi wala xool nuñ ko lijjantee waaye daal fas nañ yéene daal octobre bay ñëw deux mille vingt deux mille vingt et un dana commencé te euh, sant ak ngërëm na mbokki internet yi doon safoo tey bàyyi xel euh, seen site bii di 24 actu Sénégal xanaa rek euh, damay jox sama waa sama gan gi nga xam ne macha allah leeral am na solo lool muy sëñ Fallou Bousso ñu koy sant tey itam ci disponibilité bi nga xam ne may nañu ko ak ubbil bunt gi nga xam ne ubbil na ko waa 24 actu si ay buntam sëñ Fallou lan ngay tàggoo mbokki internet 24 actu. waaw di leen sant rek di rafetlu liggéey bi tam ndax lii tam dafa am solo ci école yi ngeen ñëw xool. ba gis matukaay yoo xam jël nañ ko ci daara ji fii wax dëgg yàlla bi état bi ne dañuy ubbi ñun jëloon nañ suñu matukaay avant nga xam lépp lu ci lu mu laaj ci wàllu produit yi ñu war a jëfandikoo ci wàllu thermoflash yi wàllu laxaskaayu loxo yi yëpp dañ ko jël machine bi ngay seen ne électronique lay doxe maanaam laxaskaay la waaye boo xam électronique la nga ñëw teg sa loxo rek dégg sa loxo rek mu xelli nga raxas loolu pour pour pour aar xale yi kon matukaay a jël yëpp maanaam parents xam ne xale yi bu ñëwee matukaay yi ñu war a jël fii ci école moom danañ ko jël léegi nag mu des ca kër ñoom tam ñu soññi leen ñu jël li war a jël loolu lépp nag ñu koy def ci ndigalul ñi nga xam ñoo jiite Al sëriñ Maam Mor Mbàkke ne ci bopp ko mu yàgg fi téwér gën ko fee dëgëral te xalaat yi nga xam ne am ci jubbanti ak jafar yàlla may ñu ko di leen sant yéen tam ci rafet lu liggéey bu baax a baax di seentu dongo yëpp incha allah xamal ne daal matukaay yi mat na bu ñëwee incha allah jàpp nañu liggéey bi dana baax. jërëjëf sëñ Fallou ñoo ngi lay santaat bu baax a baax a baax rek ci woyof geek ubbil bunt gi nga xam ne ubbil nga ko waa 24 actu ay buntam waaye tey tam lu may lool tamit ñoo ngi sant mbokki internet yi nga xam ne ñooy safoo tey bàyyi xel seen uh, sit bii di 24 actu Sénégal rawatina seen émission bii di li ci réew mi comme niñ leen ko waxee ay bis ju ne lay doon fii ci 24 actu Sénégal bu ko kenn tàddee incha allah kon ba beneen